ab misaal a ngi ci nettali bi su ma yëkkatee aw doj ba ca kaw ma bàyyi ko luy xew kon doj wi dafay daanu ci suuf loolu lañuy woowee ni suuf di xëcce lu nekk ci kaw te dara teewu ko suuf da koy xëcc ci moom lan mooy xew su nit yéegee ca catu garab ba noppi tëb kon itam nit ki dina daanu ci suuf waaye su nit ki xamul ne suuf dafay xëcce ndax dina daanu ci suuf ba tey waaw su nit kooku déggoon dëgg googu waaye mu bañ koo gëm lu koy dal ba léegi dina daanu ci suuf su fekkoon ne xam na bu baax ne suuf dafay xëcce te faydaalul loolu lu koy dal nit ka dina daanu ci suuf lu tax ndaxte dëgg la ne suuf dafay xëcce ndigal yàlla yi itam noonu lañu deme yàlla dafa joxe fukki ndigal yi ngir xeet yépp topp leen nun sunu xamul ndigal yi wala gëmuñu leen wala toppuñu leen du tere ñuy doon dëgg ba faw su sa doom nekkee xale danga koy jàngal ni muy moytoo safara ndaxte dafay lakke noonu itam lañu war a jàngale sunuy doom ñuy moytu bàkkaar bala ñuy mos metit yi ciy jóge bàkkaar dafay teqali nit ak yàlla te dafay indi dee